travaille ensemble on gagne ensemble on gouverne ensemble. kaddu yii la Amadou Ba sandi ay militants am tey ci seeni ndaje pour taxawal seeni directoire de campagne ci boobu ndaje mu woo ñi nekk ci coalition bii di benn Bokk Yaakaar ñu gën a taxaw ngir woyal ndono gi nga xam ni président Macky Sall teg na ko ci seeni loxo. moo taxit je vous réaffirme mon engagement et ma conviction pour que loolu dara du ci wàññeeku dara du ci wàññeeku. alakuli alin ñu xeex pour yokk ko ndax ku yokkul da ngaa wàññi et on va se battre pour ça on va se donner les moyens pour sa parce que j'ai l'intime conviction ñi nekk fii ku ñu nekk sa ginnaaw ànd ak yow waroo am sikki sàkk ni da ngay gagner élection si élection yi ñu jëm coalition bii di Benno Bokk Yaakaar teg ay pexe ngir permettre seeni militants pour ñu mën a bokk ci directoire de campagne bi mooy ne lii ñuy def nii tey muy directoire bi ay pôle la ñuy wax fii képp koo xam ne nii am nga xam-xam wala nga am yéene wala nga am pas-pas ne man dinaa dugg liggéey ci directoire bi man nga di mais bu ñu paree ci pôle yi dañuy territorialiser le directoire territorialiser directoire bi mooy lan li ñu fiy wax tey dafa war a génn tey dem ci gox yi ak gox goxaat yi. boo génnee pôle stratégie bi nga xam ni Moustapha Niass ko jiitu ak lii di cabinet du candidat yeneen pôle yi des ku bëgg mën na faa bokk. si aljuma bi ñu jëm conférence des leaders bu benn Bokk Yaakaar dina toog ngir jàngat ba xam ñan ñooy nekk si directoire bi.